Euh, maanaam si àdduna bi yëpp xam nañ ko muy marque boo xam ne Angleterre lay jóge di loo xamante ni maanaam euh, parfum de classe la ñu di ko faral di gis ci aéroport yu mag yi comme aéroport Dubaï aéroport Paris ak euh, Londres tey jii nag ñu ñëw représenté ko Sénégal indi ko ci foire bi pour mën a gën a jige suñu clientèle léegi nag couleur mi nag day nekk parfum boo xamante ni macha allah ñi ko joto utiliser ñëpp xam nañ ko du nekk loo parfum comme yi ñu daan gis ci marché bi mais dafa nekk parfum de classe kon ku bëgg parfum de classe comme yi doon gis ci shop yi ah, xamal ne waa Color Me indil nañ leen ko ci ay senteurs yoo xam ne aussi yu yu extraordinaire la senteurs yoo xam ne bokkul ak yeneen parfum yi maanaam du nekk yoo xam ne yu latte la nga di ko def di génn di gis keneen kuy xeeñ même xet bi mais yu yu spécial la waaw loolu daal lañ leen indiloon tey. waa sëñ bi ba xam mën nañu xam bii mooy seen première fois ci biir waaw li may suñu première fois parce que color mi boo ko xamee xam ne du lu yàgg euh, du lu late aussi ci dëkk bi c'est la première fois mu ñëw Sénégal képp koo xam ne am mës nga ko am rek da nga mës voyage yi jënd ko mais ku ko am fii instant yi ñun ñoo ñëw comme jigee clientèle bi maanaam indi ko ci marché bi pour que nit ñi mën ko am comme te comme que lu jafe la woon pour nga am ko il faut nga am benn sœur boo xam ne day voyager wala nga am benn benn mag buy voyager wala papa wala nangam tay nak ñu indil len ko ci foire bi parce que bëgg nañ dal sénégalais yi coloré wu di xeeñ color mi. waaw color mi nag euh, tey dañu indi color mi am nañ 5 color mi yo xamné yu góor la mhm. am nañ aussi cinq yu jigéen mais comme man góor la damay ñëw ci yu yi am nañ color mi white mom color mi comme son nom l'indique ay tour la yo xamné ci couleur le départ. kon color mi moy couleur white moy wex pour ñu ko xamul color mi white mi ngi ni di nek si bouteille bu rafet am aussi bouteille bu ndaw am aussi déodorant lepp white Amna aussi color mi black mo nek ni Amna aussi moom itam bu ndaw am na déodorant bu mag bi mi ngi nek 100 ml. bu ndaw bi nek 50 ml. color mi kon nak euh, mi ngi ni ngeen diko gis ci écran bi color mi aussi amna color mi silver sport Silver Sport nag xanaa ñëpp xam nañ ko comme ñi nga xamante ni euh, ñooy def ñooy def sport euh, gis nañ ne waaw c'est que écriture bi ni ñu ko bindee la mais nii la war a taxawee couleur mi sport Silver Sport moo nekk nii. am na aussi couleur mi gold couleur mi gold ñi nga xam ne xam nañ parfum one million de Pacorobane euh, buñ ko xeeñoo day mel ni que one million original lañu leen tegal kon couleur mi gold moo nekk nii ñu gis ko ci bouteille bu dooree bu rafet macha allah liggéey bu mucc ayib daal. doonul loo xam ne da koy daaneel muy toj wala dara dañ ko defal ci boîte plastique bu rafet neex a teg sa coiffeuse am na aussi couleur mi volt volt moom comme peut-être vert lay signifier mais vert bu rare la bokkul ak yeneen vert yi mu ngi nii aussi ñu ngi koy gis moom itam la même chose am na bu ndaw am na déodorant kon cinq yooyu laa leen indil comme par couleur mi euh, yoo xamante ni pour góor la ma jox soxna si nag mu bàyyee ko ak moom mu wax leen yan mooy couleur mi yu jigéen yi waaw man lenn laa bëggoon xam couleur yi may gis nii yëpp euh, bouteille parfum yëpp ni ñu rafetee nii ba xam ñoom ñëpp bokkuñu senteur. waaw xam nga euh, dañ ne les couleurs et les goûts ne se disputent pas moo tax ñu def ko ci ay couleurs yu différent pour que nit ñi mën koo xàmmee mais li ci ëpp solo mooy xet ya xet yi moo am solo xet bu ci nekk ak moroomam bokkuñu dara mais yëpp day neex nga xam ne tey bu la neexoon nga ñëw ne cinq yu góor yëpp laa bëgg amul benn xet boo xam ne dina si naqari wala du la neex. et puis li ci ëpp solo moy color mi nekul parfum bo xamné da ngay am sinusite wala nga am asthme di am problème am deuxièmement du nekk luy tass ci yéré dañ ko défa liggéey bo xamante boko pomper ko pompé sa yére atomiseur la day day dégager vapeur mais du nek liquide buy buy toyal sa yéré après mu indi ay taches loolu dañ ko sétlu ci parfum yu bari loolu nak nak euh, ñu son ci pour que color mi mom non la ko diké mom amul lo xamante ne lenn luy tass ci yéré et puis amul lenn luy indil. Euh, sa maanaam euh, lu lay indil ay affaire wu feebar comme asma wala dara mu di lay indil ay problème waaw. kon léegi mën nañ bàyyi soxna si mu wax soxna si na nga def. maa ngi fii soxna si. ñu nuyu nañ la ñoo ngi fii ci biir foire mën nga ñu wax yéen seen produit yi ngeen di jaay. merci ñoo ngi nii si biir foire bi comme ni ko Matar waxee rek am nañ cinq produit yoo xamante ne pour homme la cinq parfum am cinq yo cinq aussi yoo xamante ne pour femme la. Famille, yi moo sky blue sky blue pour femme la avons na bouteille boo xamante c'est 100 millilitres aussi bu 50 millilitres am aussi déodorant am aussi euh, pink bi pink bi aussi c'est pour femme même chose avec euh, sky blue bi Amna 100 ml, millilitres ml millilitres des déodorant am aussi néo pink bi aussi pour femme la am aussi aussi euh, purple nous aussi pour femmes la avons 100 ml 50 ml bi des euh, déodorant comme niko mata waxé rek comme ni mata color mi implanté au Sénégal c'est la première fois muy au Sénégal parfum bu Bess. la et ñi ngi wo ñëpp Sénégal nous nak ñi ñëw ci foire bi ñoo ngi juste à côté ci côté concert en face euh, pavillon orange pavillon au moins Sénégal ñuy ñëw découvrir parfois yi parce que neex na trop franchement. d' accord ba xam yéen a gis client yi yéen a ngi ciy gis seen bopp client yi ñu ngi ñëw ba xam. ñu gis client bu baax nag parce que ku romb moom boo ko xëncoo boo demee di nga retourné waat loolu moom c' évident moom ndax parfum yi dafa neex. Ah, d' accord c' objectif léegi kan moo ku leen bëgg a ñëw seet si muy def. bu ñu bëgg ñëw seet si mun nga ñëw si foire bi instant yi bu foire bi jeexee nag ñoo ngi Sandaga am nañ benn showroom bu nekk Sandaga am na benn aussi bu ñu war ubbi fii Nord Foire

li ngay yéeg mu neex féex ànd ak xet gu neex mooy li neexal sa nekkin te loolu lenn rek moo la ko mën may mooy parfum Color Me parfum bu neex ba jéggi dayoo ba noppi dajale lépp luy baax baax piisoo ko mu ànd ak yow ngay xeeñ neex di dem ku la gis naw la doxal sa dox foowal reetaanal defal lu la neex te xam ni fekk yaa ngi ànd ak parfum Color Me xet gu neex du jóg ci yow